nee mi ngi nuyu mbolom yëpp ne lima waxon ci barab ya rek bam wat waxat ko ne ndigal du daanu ne ma ma di ci tek tag kaddu waye dama dul fasiyene jox kaddu gi seigne babakar mu sant taalibe yi gërëm ne fàttali leen sarax si loolu rek laa bëggoon a wax. fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yeebal te mu mate ko sëkk. ñu ngi xoolee jëmmi sëriñ bi. nee na ñoo xoolee jëmmi Cheikh Mouhamadou Mountakha toogaayee mu nga toogee fii bi. di bi. di la si sëriñ bi. nee na nga xamal ne sëriñ sëriñ Mountakha sedd na guy. Serigne Saliou nee na xolab na guy lépp lu am si kër gi te nu def ko fi nee na Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko fi def nee sunu dërëm dugg si lépp la def ba mat sëkk nee na loolu yi nag day wane na nag pas-pas bi nag ak Pastef bi bi nga xam ne nii moo nekkoon si diggante sëñ Modou Mamoun sëñ Modou Mamoun nee na ñun ñii di ay bokkam ñoo ko mën a seere si mbaaxam si mbaaxam si yaatoom si bëgg sëñ Touba ak sagu sëriñ Gaawaan si loolu yi rek la sëñ Mamoun doon dox. nee na bis dafa gis ñu wone màggal Daaru Salaam def reportage. wala keur mam Cheikh Anta ga nek si gan xol bi metti lol mo woo sëñ Babacar mi bam ñew ñëw mu ne ko seigne gawan day upp na li man de dina ci jaar dinaa si jiyaat lolo waral liggéey boobu bii muy def ñuy ñaan muntaha touba Touba. mu ñaanal ñu ba ñu am kàttan ànd koog njaboot gi yeggaleel ko yéenam sa liggéey ba sëriñ Cheikh Anta moom sëriñ Mor Rokhaya dégg nañ sa wax baax balay sa nee nga lépp looy dox mbokk rek la nee na moom sëñ Babacar naw na la lool nee na xam nga lu tax mu naw la sag taalibe rek ak sa bëgg sëñ gaawaan nee naw na la lool ndax bi sëñ bi ñëwee daa am baat bu ko yëngal moom sëñ Cheikh day sama buntu si Daaru salam, nee na yëngal na ko lool nee na la ngir wax li si des nak, mooy njaboot gi. nee na ñooñu ku nga topp koo xam ne toppoon na Cheikh Mouhamadou Mamoun. nee na bul goree di de. nee na Cheikh Mouhamadou Mamoun jóge fi de. nee na te liggéey sëñ Mouhamadou du ruus. te am na ngërëmal sëñ Tuubaa nag. na kon sëñ Sidi mii di taawam sëñ sëñ Sidi mii la ko tuddee ñun ñëpp nag benn lan kon muy ñaan mbokk taalibe yëpp ñi nga xam ne ni ñoo aju ci kër gi aju ci sëñ Modou Mamoun bu jotaay bi jeexee nan fekk fi sëñ Sidi lee fële ca kër ga te yeesal seen yëbal bu dee ay gor lan cey dee bu dee bëgg nañ sëñ Maamun bu dee gëm bu dee gëm nañ sëñ Maamun nee na sëñ Maamun a ngi nii toog moo war ñëpp moo ñun nag duñ ko bàyyi suñu doom lañ suñu taaliba yi la tamit nee na ñàkk nañ lu rëy ñàkk mag metti na lool ku mel sëñ Maamun waaye sunu xel dal na lool ndax bis bii nag bokk yëpp yal na sunu borom fay leen buntu kër yëpp buntu kër sëñ Gaawaan yëpp buntu kër sëñ Tuubaa yëpp ñëpp teew rek war naa doon jàngat suñ ñun ñun ñee fa des ñu xam ne nag ak taaliba rek moo am solo ñoo ngi sant Serigne Saliou moo fa njëkk di ko taxaw moo sëñ Mamor ba mu fekk ko fa Serigne Sidi mii moo ko woowee Jolof na ko jugal mu ne taal naa sama maa ngi jëm Touba kon nag njaboot gi yëpp ñoo ngi leen di sant sëñ Babacar nee moo ngi sant njaboot gi yëpp di sant soxnaay sëñ Mamoun yi ak i taalibeem yépp nag nee na gis nañ taxawaay bi yëpp lii mu am nag sëñ Mamoun ku mu doyul dara du doy nee lii ak baax rek la kilifa jóge fu nekk tiim ku ne tiim la neen dañuy rafet njort rek kon jërëjëf sëñ Muntaxa léppam man na léppam man na wa baatinan lépp man na lépp mbokk yëpp kontaan nañu